ko mbette seko moomul baay ak nday bibis tey suñ réew mii barkee bal xe am lakkabar ci woy wii nga woyaan gaynde yi ñu jaare fa toog nga jógaat fii nangam sangam naan gars yi dañ may ndi tambale guusal ak duraat non non bibis bibis nanu leeral point boobu moomoonu nga ni xew mel ni xajub timis moomoonu barkee bal xe am bar bu fekkantee nag am nga sa bës sa bësee ngi noonu bibis mais c'est que ñu jox jox la micro naa woyal ngay woy naan Sénégal ren ngir daaw jëlee ngeen ko bee ren jii jëlu leen ko kontaan nañ. <laughs> yow da nga noo yab yow da nga ma ni xanaa dañ lay may chaîne wala ñu lay may matuur man bi bis mi damaa jàpp ni barke mal xaamal ak dañ koy chargé mu doog a wax. lan mooy problème bi senegal bës fi gaaw dinañ jay nit muy calawliitu ba mel ni cuuj barke yombal xaamal ak Sénégal cuujab ginaar dinañ ko jay ba muy guus guus lu naan copine laa. bibi sew kan moo la wat coiffeuse bi la wat laa bëgg ni njëkk a ba pare rek barke bal xaamal ak ba uwee laa yow woy nga ba toog sa woy boobu ba nga ko yëkkatee ba mu xëyee lan mu ñaf ñu ñibbi si barke bal xaamal ak ba yow woy nga ban toog nga bëgg a continuer naan da ngay woy man bëgg faal maa la wax booy woy ma lay jaay sama bakkan <laughs> wo woyal ba woy boo woyee barke yow mal xaamal ak ma jaay la sama bakkan tiita prend pour kii <laughs> non dégg naa seen waa école la dem ndeysaan ñu naan bi bis ñëw naag dama laa bëgg ñu fatawoo uwe laa ma ni ki ñàkkul karaw ngeen di fatawal bi bis amoo karaw de yow loo woyoon ban ñàkk ko barke mal xaama la kabar danaa la ko sib ana sa karaw bi bis sa karaw bi bis bulus nga sol da ngay jàng wala jàngu bi fa nga jaaral ba woy fa ngir ngir ngir ngir ñu dem barke mal xam la di nga fa jaaral ba woy ko ñu jëlib coupe bi bi yaay indi coupe ci nii wala ci naa mbaa ma ñaf la ay mbëkk ba nga saw <laughs> non non non non am na loo xam ne am na loo xam nañ ko wax ca